ñu nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne ñu dégewaat nañ fii ci kër Serigne Cissé officiel yaakaar naa ne àdduna bi xam nañ ñoo Serigne Cissé muy émission yoo xam ne nii yéen yéen a ko moomal seen bopp te li ngeen bëgg a dégg li ngeen fi gis yaakaar naa ne ni ngeen koy aimé di ko partagé gis ngeen ci résultat yaakaar naa ne tey jii actualité bi am mooy Serigne Cissé dinañ ñëwaat ci seetum loxo bi bu ñu ñëwee ñu ki sangatu ibbeeku bi nga xam ne temps yi mu lëmbee àdduna bi bu ñu paree nag Modou Lo jàkkaarloo naag ci ndax Serigne Cissé da ciy duggum du ci dugg ci kanam lañ ci dem dañ jox Serigne Cissé suñ Babacar Si mu nuyoo Serigne Cissé noonu ngeen ñëw réew mi ak àdduna bi. jërëjëf El Hadj Sàppali ñu ngi lay nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. waaye di nuyu mbooleem soppeeb Serigne Cissé bu Seydi Aboubacar ci site bii ñuy wax Serigne Cissé officiel. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen baalu ak waaye di leen sant leen abonné ak partagé. ku ko def ñoo ngi ñaan ci dara ji yonent bi yàlla yàlla faj sa aajo alaaji sàppali bismillah yaakaar naa ne am na solo Serigne Cissé tey yaakaar naa ne seetum loxo bi wër na àdduna mhm. te yaakaar naa ne mosuñoo gis ko ci génn mhm. wax ci loo xam ne nii négatif la mhm. Serigne Cissé sa diggante ak seetum loxo bi lan ngay teg ci loxo bi nga xam ne tey jii mooy loxo sénégalais tey jii seetum loxo bi jërëjëf Alaaji Sàppali ku fi am fatu yàllaa la ko jox ku fi am xam-xam yàllaa la ko jox kuy xool di gisit yàllaa la ko dimbalee mhm. yaa maxsaral jinni wal insi ini sa taxtumoo an tan fusu min aqtaari samawati wal ardi waaye fan fu fusu la tan fusu ila bi sultaan mbokk mi yow mi may seetaan am soxla moo xam Sénégal nga nekk moo xam ca diaspora ba nga nekk moo xam Gàmbi nga nekk wala fu mën a doon waaye waa Gàmbi maa ngi nuyu ca bundu bool sama soppee bopp ah di ko siyaara di ko ñaanal jàmm daleen wax ne maa ngi waajaat pour ñëw Gàmbi ca bundu bool ñu ngi leen di mhm. mbokk mi yow mi may seetaan nekk Gàmbi da nga am soxla wala am tawatu biir yaram joo xam ne fu ne dem nga fa wala nga am wërsëg woo xam ne dafa am problème mënoo dajale dara mënoo yor dara wala danga bëgg ay këyit wala dafa am ndaw sooy bëgg wala sa yaram daal am na yoo ci sentir wala sa programme mu àdduna nga bëgg a xam Serigne Cissé ne lenn rek ngay def lan ngay def wax naa la barke dem mu ne jëmmi doomu aadama muhammadu rasulullahi la taxawee booy jàng mu ne la miim la xadam dellu la miim la deel ñeenti baat yi mooy jëmmi doomu aadama ji yow mi bëgg a xam yaay kan sëriñ si ne da ngay foto sa loxom ndey bii nga yónnee ma ko jox ma sa turu yaay ak sa turu baay lépp loo xam ne bëgg nga koo xam ci sa bopp boo foto sa loxom droite bi yónnee ma ko insha allah alaaji sàppal ndem soob na yàlla di ko xam Mm-hmm. guddi yi ñu toll. dafa am mm-hmm. loo xam ne tey jii moo boote ci seetum loxo bi. Mm-hmm. muy sagum ubbeeku bi. sagum ubbeeku bi àdduna bépp moom la ñu waxtaanee ci seetum loxo bi lay basé. wala sagum ubbeeku boobu day nekk à part la wala benn. maanaam nit ki wax naa la ba taay ne. médecin balaa moo faj. nay xool ba pare. bu suukar yéegee bu mu perviser bu suukar yé bu suukar yéegu nag mën na perviser. Serigne Cissé mu Seydi Aboubacar ne sangat balaa ma koo defal. ndax doomu aadama yi dafa ci bëri ñoo xam ne danoo am problème ñii làmmiñ leen tëj ñii raba leen tëj ñii saay-saaye leen yàqal liggéey leen ñetti yii nag bu dajee ci doomu aadama bi da ngay njëkk raxas doomu aadama bi aw yaramam raxas bi nag nan la dañuy fexe yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan fii ci Serigne Cissé officiel dafa am sangat bu ñu lay defal goo xam ne bu ñu ko defee gàllankoor bu mu fekk ci sa yaram dana ko dindi lan la ñuy bind fatiha la ñuy bind fatiha juróom-ñaari la aaya bu ne dañuy dugal alam tara bu nu dugalee alam tara ba lim ba ñu bëgg ca faatiha ñu am ko lim ba nu bëgg ca alam tara yi ñu am ko jox la ko nga sangoo ko insha allah mboolem gàllankoor boo xam ne nekkoon na ci yow yàlla dana ko dindi bu fekkee ne kumute nag wàllu boppam la dafa ne ci yow dañu lay bindal baat bi nga xam ne ayaamun xaliboona yan xaliboona am na lim bu nu koy bind bu nu ko bindee bu fekkoon danga am kumute boo ko sangoo kumute day dàqu yii kon cat génn na ci yow rab génn na ci yow liggéey bu bon génn na ci yow làmm ñu bon génn na ci yow sëriñ si ne kon lan la ñuy def danañ doo ko mën a taxaw nag jox la sangat jii nga xam ne doomu aadama bu ko sangoo yàlla ubbi say wërsëg ndax yàllaa nu jàngal ci alquran ne wa ma min daabatin fii ardi ilaa alallaahi risquha jaamu yàlla bu mu mën a doon ak koo mën a doon ak foo ko donee am na wërsëgu la yàlla yenkeewal ñii nag dañu gën a jamono seen lépp am ñoo xam ne balaa mbir il faut ñu téyel leen turu yàlla wér daal leen ko il faut ñu defal leen sangat ñu sangoo ko Serigne Cissé ne yow mi nga xam ne da ngaa bëgg sangat goo xam ne da ngay ubbeeku yëkkatiku ba ñépp jox la alxuraan da ngay wax ne wër a naa maakaana aliyan dafa am yow mi nga xam ne da nga bëgg ubbeeku dañ koy binda ah, dañuy seete alam nasara aaye bu ne dañuy dugal wër a fax naa maakaana aliyan bu ñu demee noonu lañ koy ràbbee ca wàqehaa ñépp gëm nañ ni juróom ñeent fukki aaya la yu manqué benn téeméer bu manqué benn kon buñ ko paree noonu lañ koy ràbbee it ca wàqeha buñ ko paree mu doon ak sangat boo xam ne yow mi tëju ki rek boo ko sangee yàlla dana la ubbi ndax lan moo tax ngay ubbeeku yow kan moo la bind borom bi kan moom moom téere bi borom bi subhaanahu wa taala kon boo ko sangoo yàlla ubbi la lii mooy sangat gi nga xam ne koo ko sangoo yàlla defal la sutura alaaji sàppali sëriñ sëriñ si bu sëriñ Babacar maa ngi bitim réew bëgg naa sangu sangu ubbeeku bi mm-hmm. nan laay def ba jot ko ak bu ma koy jël nan lay ñëwee ci samay loxo. du lenn gis nga lii enveloppe la jëmut ci réew mii ñu ne day dem ca diaspora ba am sangati jàmbur moo ci ne. yoo xam ne day dem kan ka nekk ca diaspora bu dee mbind la moo xam ne lii danañ ko effacé ci witteen def ko noonu defal la ci mbuus nga jot ca. lenn loo xam ne danañ ko bind defal la ci enveloppe boo ci jotee yónnee nu ko nu wax la lenn lu ne na muy demee Fatara ak la wala ay ay sangat. loolu am na solo yaakaar naa ne mooy sangu ubbeeku bi nga xam ne mhm. tey yi moo téye réew mi mhm. te yaakaar naa ne am résultat wa tax ngeen fekk fi bi yi mhm. ku nekk ngi bëgg a jël la moom waaye ku ne Serigne Cissé mu Serigne ne Lo le roi des arènes ku ne Serigne Cissé ne am na lam ñu waxoon ca diggante Modou Lo Ama Baldé waxaat ñu ko ca diggante Modou boo Boy ñu ñëwaat Modou Lo démb ca ngoon jàkkaarloog nag àdduna signature ak Siteu Siteu xamal ne ko ne ko Modou bu doon paquetu miskit la doo yooyu benn da jàkkaarloog yow ca da mu ne Modou ne mm. ñu jàkkaarloo woon bu doon paquetu benn duñ yëy waaw danañ yëy insha allah alaaji sàppali mm. man Serigne Cissé bu eh, na dugg ci combat bi de damay wax ne da mbir mu mën a doon man Serigne Cissé bu Seydi Babacar waaw duma ko toppee bakkan wala lu neex nit ñi dama koy topé haqiqa muy xam-xam ak batil lo bëgg wax xam nga ak fala boo ko diko di ko wacce boo wàccee fala ga dem ca xàddaaf ga wàcc nga fala ga man fala gi laay bëgg a topp te maa ngi topp fala gi ma ngi ko ne jàkk waaye jaralagun ma génn nag dem saaru Serigne ci ak li ci andal ak mbokk Serigne di dar nangul nanu ko loxoom nga ne Siteu jaralagu la dem ma génn dugg Saalum. ndax maa ngi visé combat bi topp ko ci xaqiiqa baatin ci loxo bi di seet. gisagu Siteu dara lu. déedéet gisagu ma lu jar génnagum dem Saalum ndax 4 mois des na ci combat bi bu desee une semaine ma dugg. <laughs> tëj portu yi gur gi ma tasaare ko ci paa yi ci Saalum ñu dem arena Serigne Cissé dama xam rawaanu arena bis bu nekk lim soxla. rawaalu arena bis bu nekk lim soxla dama koy xam man moo tax alaaji fadam man ku dégg sañ-sañ bi may waxee da nga xam ne sëriñ Cissé mi waxewul bakkan man li may dagaase baatin bu pire pire laa lay waxuma nag folklore yi ñuy wax nii man li ma yor duwul liñ naan li ñuy exposé la baatin la xaqiqa waaye diggante Siteu ak Modou bu ma waajee fadam ba ne la waañ naa ba arbitre bi sifflé damay bañ ñu tamati sama waaj yi Serigne Cissé nga ne Siteu nii ak li mu wax lépp démb nga ne nga ne Siteu nii jaral ko la ko mu def Saalum. déedéet ma lu ma jaral def pelin. gisaguma lu ma jaral def pelin. te bu ma defee pelin ba wàcc ci penc yi wax ak góor yàlla yi kenn ku ne li tax man xam ma gën ñàkk maa xam. Mm. man boo ma xamee. man soxla bu mu mën a doon ak man Serigne Sy mu sëñ Babacar yàlla dimbali na ma lool ci baatin waaye man damay partage ci ñaan yàlla ñaan iki ba koy def kon li ma gisagum moom di ko déglu déedéet fanaan naa nekk ci soxlaa jaam yàlla yi ba ca kanam. Serigne Sy nag ma wax benn baat bu doy waar dama mos a dégg benn góor yàlla mu ne ma. Mhm. mu ne ma xëy recevoir ñetti li seetal leen rek. dafa mhm. dis ci doomu aadama. wax na dëgg. mu ne ma soxla doomu aadama yi dañ koy bokk. dañ koy bokk dama am benn mag mu baax mu dëkk fii dëkk bu ñuy wax càng muy mag mu mënoon kurus fatarakalaaw tour yu duma ko wax waye boko ko mosaan jox soxla bu ñëwaat Dakar gi nga jox ko soxla soxla ba day ñew wacc salum seet goor yalla yi mag kenn ku ne mu yëkëti dara jox la jox la tour wa combat boy ñaa modlo Lo dafa jot may defal sama papa gamu kilifa yu magi ci salum yëp ñew ku ñew ma bind tour wa rek jox la boole ci aw kayit ba ma paree kenn ku ne ma laal la appel na ma bëggee ma wax la ko ñu jëfee noonu. Siteu li nga nar a def ak moom. ah bañ yegg ca gisaguma nag lenn loo xam ne xabtal na Cissé ba sëriñ Cissé def noonu waaye bu ma defee plein ba wane ginnaaw ngeen jël ko ni ñu yëg ne dem naa Saalum. bu ma yëg seen dama am incha allah. sëriñ Cissé yaakaar naa ne sa diggante ak lu ànd bu yàgg la. dëgg. waaye gàtt bëri njëriñ mi yow sa diggante moom tamit mu ngi tëgg réew mi. dëgg la dëgg la dëgg la kii kii mu Sàppali. nee naa la mbër yaa ngay daan ca arène ba waaye gaañ yi daanatuñ ci biir kër yi ku ci bëgg daan ci biir kër gi da ngay jël mbégteem kër gi boo nekkee Amérique waaw Espagne Canada Angleterre foo fi nekk boo ko soxlaa kër gi dana la fa fekk kon international la la man sama lépp international loxo bi international la course gi international la saafara si international mais man sama garab doo ko naan di miire bopp bay métier biir bay jóg jëm ci kaw déedéet. da nga koy naan ne tekk bu ar bi sifflé mu war li nga naan mooy lan. man de sama garab bi nekk ci aaru géej gi moom dégg naa mu ngi koy tàgg. fa tabaarakallaahu <laughs> alaaj xaadim nee na ma sëriñ si ne yàlla yàlla guddal sa fan. moom sama xaadim mu neex ma. waaw xaadim bu gisee njëriñ day sant. boo ko jëbalee mu sant sëñ xaadim Njaay ku baax la. fa tabaarakallaahu yàlla yàlla barkeel. garaaw bu boo ci seetu daal. waaw da ngay def ba kawas yi da lay réer. <laughs> kon <laughs> kawas yi réer ko képp ko soxla mbégteem kër gi wooteel ci numéro yooyu rek. insha allah foo mën a nekk ci réew mi moo xam nga nekk Sénégal ak foo mën a ne. dañ lay defal libération mu ñëw ba ci yow doo ci am benn problème boo ci amee kersa yow fexeel ba jot rek ne liñ la wax daal def ko boo ko defee mu fekk si la fa nga ne. jërëjëf sëñ bi wasalaamaaleykum.